bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi tedd yi tey mooy sunu jotaayu fukk ak ñaar ci sunu bind alhamziyatu li al imaam al busayri rahimahullahu taala al imaam al busayri tey dafay delloo ci histoire daf ñuy nettali xissa boo xam ne xam naa ne buñ ko fiiree jàll mën na am ki koy déglu mën na koo bañ a xam ah, lu dul nag fekk mu xamoon ko euh, muy naq bu af saxiifa moo tax mi ngi tàmbaleeg ñoom ci fudiyat xamsatu saxiifati bil xam sati in kaana bil kiraami fidaa euh, ñu firi ko par benn baat ni ko dongo daara yi bëgge bu noppee doo ko indi maanaa mi ndax ab xissa la boo xam ne faaw ñu wax la maanaa mi ak la ca xewoon euh, tabarkàlla bu doon alxuraan ñu ne sababu nuzul bi waaw événement bi xewoon tabarkàlla waaye al imaam al Buseyri nee na fuddiyat démb dafa laa nettali juróom ñoo xam ne bokk nañ ci ñi gënoon na sonal yonante bi sallallahu alayhi wa di koy yëjji ah, ba suñ boroom fegal ko juróom ñooñu gis nga ku nekk fa mujje moom mujj gu ñaaw inna kafaynaaka al mustahziin juróom ñooñu nag dafa laa bëgg indil yeneen juróom yoo xam ne ñoom dëgg dañoo défendre yonante bi sallallahu alayhi wasalam ak doonte sax ñoom nekkuñu ay jullit waaw nekkuñu ay jullit waaye rek ngor xam nga ceddo teewul day am ngor am lu muy jomb amuk bañ am nangam mhm. euh, doonte juróom ñi nag ñaar ñi mujj nañ dugg ci lislaam moo tax mu ne fuddiyat jotees na xamsatu saxiifati juróomi juróomi xale ya teppi woon kayit wa noonu laa ko mën a firee ngir nga mën koo xam waaye xamsatu saxiifati juróomi kayit wa rek juróom ña nga xam ne ñoo séqoon kayit wa dana leer ci kanam jotees na leen bil xamsate ca juróom yële jàlloon inkaana ndem nekk na fidaawun ak joto bil kiraami ci way tedd ña bu fekkee ne mënees naa jot nit mooy jël nit ku am njariñ ñu xool ko amul njariñ tekkiwul dara ñu jote ko ko bu naree faatu nakee faatu bu fekkee am na luy dale ndekam kii amul benn njariñ te day yàq rek lépp lu nara dal ku baax kii kon na dal rek su ko defee kii moom muccum ndax mën a dimbale nit ñi wa amma ma yanfau naas fa yamkusu fil ardi mhm. saxaaba yi baaxoo woon nañ bu ñu waxee yonante bi salaa sallam naan ko bi abi wa ummi ya bi ma jote naa la saa ndey ak mooy lu la nar a dal yàlla na leen dal lay tekki mu ne juróom ñële daal moom na leen mbas dal na leen lu bon dal te yàlla musal nag juróom ñii bu fekkee ne loolu mën naa am tabaan loolu nekkul ne nekku ne day am demewut noonu léeg-léeg gis nit ku baax ku am njariñ faatu bàyyi fi koo xam ne la mu ne kon jot daal bu fekkee mën naa am kon juróom ñu bon ñee nañ leen jote juróom ñu baax ñii wala boog juróom ñu baax ñii nañ leen jotee eh, tabarkàlla juróom ñu bon ñële mooy na ñooña dem te ñii des fi rek nga ne ko ñooy ñan mu ne fidyatun ay gone lañ de bayyatu yoo xam ne fanaanoo nañu ala fi'lil xayri ci yéene jëfu yiw ci yéenee jëfu yiw boo ko defee baax na boo defee ala fay la ci jëf aw yiw ba tey baax na xamida sant na ak subuxu suba ga am rahum seen mañ doon nos wal masaaw ak ngoon nga mu jëf def nañ jëf ju rafet yoo xam ne suba suba gi ak ngoon gi kontaan na ci tubaarkàlla na ñoom suba ak ngoon ay jaam yàlla lañ de waaw ay jaami yàlla lañ te lépp lu baax lu yàlla gërëm rek ñoom gërëm nañ ko yaali amrin yéem naa mbir moo xam ne ataahu dikke na ko mooy def na ko baada xishaamin ca ginnaaw xishaam kenn ngi noonu samaatu ku ñu tuddee samaatu innahu naka moom samaatu mii day alfata mooy xale ba al attaau bay defaa ko nu lu baax wa zuhayrun ak ku ñu wax zuhayr wal mutcimu ak ku ñu wax mutcim ibnu adi kay doomi adi wa abul baxtariyin ak ku ñu wax abul baxtari min haysu shaa'u foo xam ne neex na leen li limal na la juróom ñi mu ne cey juróom ñi de def nañ mbir mu rëy mbir mu rafet moo xam ne histoire du ko fàtte ku ñu wax Hisham eh, ak Zamaatu ak ku ñu wax Zuhair Mut'im ak Abul Bakhtari juróom ñii nee na day def nañ mbir mu rëy nga ne ko luñ def mu ne naqadu teppi nañu waaw annulé nañu dagg nañu mubrama saxiifati lañu ñu dëxañoon ca kayit wa ca contrat ba ca pacte ba is shaddat ba nga xamee ne tar na alayhim ci seen kaw ñoom ñépp al andaa u pénc ya min al ca noon ba ba nga xamee ne pénc xuraysin di noonu yonent bi salaa salaam dañoo xëy rek bind aw kayit daal di dogoog waa banu hashim ñoom ñépp ñu ànd ca loola te loola xaw a metti loolu ndax benn famille bi lañ bay mbir ma demee ba tar ci ñoom nag ah nee ñoom ñoo jug daane contrat bii ñu signé woon wala boog pacte bi ñu signé woon dañ koy teppi ndax lii baaxut baaxut ci ak mbokk kon firi naa ko benn baat par benn baat ñu ñëwal la nettali la nag nga doog a comprendre bu fekkee ne xamoo ko woon nu demee maanaam yonent bi sallallahu alayhi bi mu nekkee Màkka di woote ah di wax nañ bàyyi jaamu xërëm yéefar yi dañ koy gis seen bopp Qurayshin te ay mbokkam moo ci jiitu nag ñoo ci jiitu ne Muhammad day xas suñu yàlla yi def nañ lu ne jéem nañ koo tuumaal jéem nañ koo jaxasig nit ñi ne nañ daa dof nee nañ daa def nangam waaye ku déglu li muy wax danga xam ne kiirub dof ñu gis nit ñi di dugg ci lislaam rek di dugg ci lislaam muy gën a yokk rek mboolam di gën a yokk dem nañ ci tabarakaala Abu Taalib ay yoon yoon yoon ne ko na wax buy wax waxam na wax wax na bàyyi suñu yàlla yi muy xas nangam nangam wax Abu Taalib it tabarakaala ànd ak yonante bi ci lim nekk donte booba nekkutoon nekkutoon ci diini ji moom it kon jëriñu dara ah gannaaw ba ñoom ñi nga xam ne ñooy waa Xuraysin nag ñu ne Abu ñu ne Abu Abu Taalib moom yoroon yonante bi sallallahu sa sa waa ji comme mënoo ko fermer mi ngi xas suñ yàlla yi mi ngi fi indi diina ju bees mi ngi ñuy yàqal mi ngi def nàngam benn nga wax ko mu bàyyi li muy def ndax yaa ko yilif yaa tee ñu rey ko dal ci kawam wala boog bu dul loolu kon yéen ñëpp lañuy ñuy boole euh, mbir mi mooy li leen dal yéen ñëpp benn daal comme sa doom la yaa ko yar te sa sa giir la bokk te am na ay teraanga yu dox suñu diggante na bàyyi li muy wax bàyyi lii muy def bu fekkee mënut loola nag kon yéen ñëpp lañuy boole sanctionné ah Abu Taalib léeg-léeg sax mu jéem a woo yonante bi salaa est-ce que doo xool ni ngay waxee yonante bi ne ko mukk li ma yàlla sant faw ma def ko même buñ ma doon rey même buñ jëloon jant bi ak weeru teg ko sama loxo muy muy tàng wala muy diis li ma yàlla yónni faaw dinaa ko wéyal kooku yonant la Quraysh na xëy suba daan na léegi ni ñuy def mooy waxuma la sax yonante bi waaye képp ku bokk ci giir gi yonante bi bokk mooy famille spéciale am muy Banu Hashim dañ leen di abandonné maanaam dañu leen génn dëkk bi yóbbu leen ba ci ci maanaam dañ leen génne ville bi yóbbu leen ba ci benn xur ñu baare leen foofu amatuñ droit dugg ci biir dëkk bi amatuñ droit takk suñuy suñuy doom ñun suñu doom it duñ takk ci ñoom dara bu leen kenn may ndox bu leen kenn may lekk moom daal mboolem luy xeet ndimbalante rek ñu dog leen ñu xasuru leen li ko mën a misaal mooy Sénégal jekk-jekk xool wenn xeet ne yi wala séeréer wala nàngam ñu génn leen ba ci benn àll ñu baare leen foofu baare leen foofu ne ñoom ñii ne buñ duggati ci dëkk bi di jënd dara buñ jënd lekk buñ def dara yéen waa dëkk bi tamit bu kenn dem ci ñoom nga xam ne kon foofu dañuy dañuy fat lañ yaru ci lekk kus néew bu nee ba jeex nu ñuy def dañuy sonn ñu ne li feek ñoom nangu ñoo jébbal yonante bi salaaw salaam ñu ray ko noppalu benn yoon du am waa banu haasib ne loolu xalaatuñ ko même ñu nekk ay yéefar sax xalaatuñ loolu ne loolu gàcce gu rëy la ñun gëmuñ li yonent bi woote waaye nag sunu mbokk la même buñ nekkul ay jullit am nañ lu ñuy sàmm ndeysaan loolu duñ ko def mukk kon loolu yéefar yaak ñëpp lañ boole woon dem yóbbu leen ba ca kii ba kenn du jaayante jaayanteeg ñoom kenn du ji kenn du wax ak ñoom kenn du def ak ñoom dara lii ma wax nag dañ ko bindoon mu nekk aw kayit ñu signé ko waaw giir yi xam ñoom dañ daa am ay giir ñu mel ne tukkulóor ñëw signé pël yi ñëw signé wala fi ñëw signé nangam nangam fekk dañ ko def contre bambara wala ñu def ko contre nangam ndax ah, ñoom duñ ci mën dara lii nag bi mu amee metti woon na lool ci yorante bi ak ak ak famille bi mu bokk te dafa yàgg ndax mat na ñetti at imagine imaginal ñetti at lii am nga ne dañ daa xiif xiif wu metti lool ba xeetu der der yi nga xam ne moom daa rey xar ba noppi jël der ba sànni ko wala gileem yooya dañ ko daan dem di wëri bu ñëwee xoos ko ba mu set di ko jéem a toggaat di ko jéem a jëfandikoo ñu am lu ñu lekk duñ am luñ naan loolu bi mu amee nag moom mooy xissa bii moo waral nettali bii léegi dafa am jëmm ju baax ju ñuy tudde Hicham ibnu Amr moom nga njëkk a dégg foofu Hicham ibnu Amr moom ab yéefar la woon de waaye moom daal daa toog ba mu yàgg mu xalaat mbir mi bu guddi jotee du nelaw wax dëgg yàlla ndax dëgg la ñii famille yonante bi lañ waaye nag ba tey giir gi benn la giir gi benn la maanaam day am ay giir ñu naan mooy pël kii mooy nanga waaye bu ñu leen boole ñoom ñëpp dañuy bokkaat benn maam ñoom ñëpp ñoo bokk nekk xoreysin euh, ñoom ñëpp ñoo bokk seeni maam yi benn la bu toogee ba mu yàgg guddi gi mu wax dëgg nag may lekk ak a naan samay doom di lekk ba suur tëdd yi nelaw ñii nga xam ne ci seen famille ak suñ famille da benn la ma toog di xalaat ne seeni doom duñ mën a lekk loolu daal ñaaw na loolu daal sama sama yaram nanguwu ko ba mu yàgg muy def bu guddi jotee muy jël ak lekk ak naan di làqatu xam ne luwaa bi da koy tere waaye muy làqatu dem di ko defi ba mu yàgg mu ne lii daal moom faaw ma am ci beneen solution parce que lii doyut ni mu def mooy lan mooy naaj naa jéem a wut keneen koo xam ne ndax li may yëg mu ngi ko yëg mi ngi ko yëg daal di dem seeti ku ñuy wax Zuhair ku ñuy wax Zuhair ndax Zuhair moomu ci giir gi Abu Jahlin bokk ci la bokk ba Bani Maxsum te giir googu daanaka mooy giir gi gën a mag nga xam ne daanaka bu ñu d'accordee rek moom daanaka tabarkalla bu fexee ba ba réussir ca am ca kenn rek day baax lool mu dem wucce ku ñuy tuddee Zuhayr kon Hisham moom dong la woon moo doon yëg loolu ginnaaw ba nag mu dem seeti Zuhayr ndax lan Zuhayr mi eh, maanaam ku ñu wax Atika moo ko jur te Atika ku ne xam ne ne bàjjanu yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ndax abul Abdul Muttalib moo ko jur comme xam na ne Zuhayr am na mbokk ci famille yonante bi sallallahu dana ko jéem a jaar foofa ba mu demee ndeysaan daal toog ak moom di ko coytu jékku-jékku wax ko ndax booba kenn ñëmut a contre loi bi jékki yow am na lu ma la bëgg a laaj am na lu ma la bëgg a laaj waaye nangu ngaa toog fii di lekk di naan yaag say mbokk yow xanaa xamoo ne eh, sa yaay fee la bokk waaw ah, ñee say mbokk yaay lañ di ñoom ña nga ca àll ba di xiif akamar amuñ luñ lekk yow lool loolu sa ngor sax waru koo nangu sa ngor waru koo nangu loolu waru koo def <laughs> ndeysaan mu ne ko ah, wax nga dëgg de loolu de lu ñaaw la waaye nag uh, nu may def waaw nu may def mu ne ko aboo jëxalin mii dafa xam ne ëmu fa mbokk rek yow am nga fa mbokk sa yaay ca la bokk waaye maa ngi lay waatal yàlla aboo jëxalin mii bu fekkoon ne place bi nga taxaw la taxaw mooy si yaayam da caa bokk xureesin gépp bu ñu dajee bëgg a def day lànk ndax loolu aw xas la mooy ñuy lor say mbokk nga di ca ànd mm-hmm. daal koy yëngal nag ndeysaan Zuhayr moom it tabaarkàlla deret ji daal di yëngatu mu ne waaye lu may def man kenn laa mënuma ci dara li mbooloo mee ko sañe su fekkoon sax am naa keneen ku ma mën a dimbale sax ñu mbokk gis-gis mu ne ko am nga ko mu ne ko kan mu ne ko man waaw man mën naa la cee dimbale muy ñaar kon Hicham a ngi noonu fexe na ba convaincre Zuhayr ndeysaan na ba convaincre Zuhair Zuhair ibnu abi euh, Umayya al-Makhzumi euh, soxna sa Atika ndeysaan barkàlla ñu ne nañ def lan mu ñu ne nañu wut ñetteel nañu wut ñetteel ñu daal wut ab ñetteel koo xam ne moom it dana bokk ñoom gis-gis ñu fas yéenee foog ñu fas yéenee bokk xeex bi ndeysaan ci lu ñu demee gis mutaam ibnu adi bi ñu gisee mutaam ginnaaw bi ñu daal di wut eh, abul baxtari ginnaaw bi ñu daal di wut zamata nag ibnul aswad al asadi ñuy juróom ñu daal di complot guddi ga ñu ne nu ñuy fexe ba yàq mbir mi ñu ne ni ñuy def daal mooy lan mooy suba waa xuraysin am nañ réunion waaw am nañ réunion ndax waa xuraysin dañ daan daje naan waaw masha allah suñ pacte bi ñu signé waa nu Hachim affaire bi saf na saf na lool ci ñoom fi ne mar nañu ñu ngi deeg xiif ñu ngi deeg nàngam balaa yàgg da la ñu jébal yonante dina gën a tar rek <laughs> na gën a tar yàlla rëbbu ñooñee noonu yooyee ñu ne nit ñi def mooy la mooy ne suba ci réunion bi daal ñun dañuy jaxasoo ci mbooloo mi rek day mel ni ànduñu xamante wuñ aboo jëxlin dana jóg wax bu waxee ba noppi ñu di ko weddi par kenn kenn waaw ñu di ko weddi par kenn kenn bañ demee ca réunion ba Abu Jahlin jóg waaw nangam nangam ba Banu Hashim li ñu leen def baax na ci ñoom nangam nangam rek kenn daal di jóg ne ko Abu Jahl li nga wax dara du ci dëgg ñëpp tiit ndax kenn ñi musu ko musu ko ñemee wax loolu li nga wax du dëgg lii lu ñaaw la ñii suñuy mbokk lañu waaw ñu nekk fii di lekk ka naan ñoom ñu xiif loolu lu ñaaw lii gàcca la waaw ñii ko ci topp nag yéen ko ci topp waaye lii lu ñaaw la lii nangam nangam nangam ah kenn nit la aboo jëlin jóg ne waa ji waxoo benn dëgg nangam rek beneen xale jóge fee ne ko yow mii aboo jëlin yaa waxut benn dëgg <laughs> waaw yaa waxut li li kii wax dëgg la waaw li Hicham wax lu wér la lii lii lii dafa ñaaw nangam beneen beneen xale jóg beneen xale jóg waaye aboo jëlin ko yeewale bi mu gisee ni situation demee kii jóg kii jóg ñépp di ay xale rek nee naa nee lii lu ñu waxtaane ci ak guddi la ndeysaan neen lii lu ñu nos la ci guddi organisé ko waaw xale daana këyit bi moom faaw danañ ko teppi ndax lii rafetut nangam nang ah mbooloo mi tas na <laughs> coow la jóg nag ci biir mbooloo ma ci des nag am ñu ànd ak gone yi ne wax dëgg li ñu wax dëgg la ñenn ñenn li ëboo jeen wax dëgg la ñuy xëccoo loolu mooy xissa bi loolu mooy loolu mooy xissa bi mu nettali lépp li ma li ma li ma jot a wax waaw loolu la wax ne yaa li am yaa li am ren yéem naa mbir moo xam ne ataahu dikkee ko ko baada xisaamin ci ginnaaw xisaam xam ne moo ko tàmbali woon zamaata ñëw fekk si ko ci innahul fata al attaahu wa zuhayr zuhayr ñëw fekk zuhayr mooy deuxième bi sax wala mutim ibnu adi wa abul buxtari ndeysaan ñoom de naqadu teppe nañu mubarama saxifati la ñu dëxañoon ca kayit wa ishaddat ba nga xamee ne tar na ci ñoom al andaa pénc yi mi naa idaa ca noonu waaw dañ koo dindi. ah am na beneen xisa bu ñu tege mooy ban bi nga xamee ne léegi nag dem nañu waxtaan ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nag ñun ko waxtaan diisoo nañu ba këyit wa daal dañ koy dindi ndax gis nañu baaxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah loolu de baax na waaye nag këyit wa de xam nga bañ koy bind dañu bind bismika allahumma boobu ay yéefar lañ waaye dañ daan bind loolu bismika allahumma daal di bind seen contrat. yonent bi saa sax ne kayit wa fa ngeen ko dëxëñ denc ko ca kaaba ga aj ko ca kaw kaaba ga ndax foofu lañ ko defoon yàlla yebal na ak max max ga yéy na kayit wa mboolem ñu bindoon mbindu mu bon moomee max ga lekk na ko ba mu def turu yàlla wa ba mu def turu yàlla wa ah, ah Abu Talib ndeysaan fekkee leen fa ñuy werantee dalañ ko dindi duñ ko dindi mu leer ne yonent bi de nee na nangam yàlla xamal na ko ne kayit bi sax bu ngeen ko teppee la ngeen ci bindoon lépp max gi lekk na ko ñu ne ah, loolu nag moom preuve la nañ ko teppee bañ ko teppee na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee woon noonu la demee fekk nañ max ga lekk na lépp ba mu des bismika allahumma ndeysaan ah amatuñ pexe ñu daal di dindi contrat ba mu jeex waa banu haasim daal di ñëwaat duggaat ci biir nit ñi ñëwaat jaxasoog ñëpp bokk ci dëkk bi nekk ay citoyen loolu la al imam Buusiri di ñu fàttali nee na azkarat naa fàttali nañu bi ak lihaa ca ak lekkam ca max max ga lekk gam lekk seen contrat boobee ñu sañe woon loolu daf ñoo fàttali akala min saati suleymaan lekkuk yatu suleymaan ba mooy dokkam ba lekk gam ko lekkoon al aradatu max ga al xarsaa u bay aji luu ba nga xam ne mënta wax <laughs> ba nga xam ne mënta wax nga xam ne wa axbara xabaar na bihaa ci lekk goog yi max gi dem lekk seen téere booba an yu yonent bi wa axbara xibaar na bihaa ci loolu an nabiyu yonent bi wa kam lu bare lu baree bari axraja génne na xab an ak denc euh, xuyubun boo xam ne ay secret xibaawul aju suturaal la lëxoo ñeel ko mu ne yonante bi sallallahu alayhi wasallam xibaaroon na leen ne leen seen kii woogee bu ngeen max ga lekk na ko mu ne yonante bi naa def lu mel noonu bari mbir mu nëbbu mu suturawu yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax ko te fekk jotagut ndax yàlla moo koy moo koy won ay kumpa yàlla moo koy won ay kumpa maanaam yonante yàlla Suleymaan suñ borom da koo tàggataloon jinne yeeg euh, seytaane yeeg lépp mu saña a soppax ci ñoom te duñ ko saña a bañ duñ ko sañ bañ loolu boo demee ca tabaarkàlla sóoratu sóoratu saba yi i ndeysaan yaamaluuna lahu maa yashaau min maxaariba yëpp da nga ko cay da ko cay fekk ne dama koo tàggataloon jinne yi ñu di ko ñu di ko liggéeyal lépp wali suleymaan riixa tàggatal ko ngelaw la xuduwuha shahrun wa arwaaxuha shahr wa asalnaa lahu ayna alqitri wa min aljinni gis nga ko man yaamalu bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yaziq minhum an amrina nuziqu min asaabi sair man yaxmiluuna lahu maa yashaau mhm. maanaam yàlla da koo tàggatal saytaane ak jinne yi mu di leen saña mbugal di leen liggéeyloo di leen loo ay xeeru diis lu ne lu lu ko neex mu di mu di leen ko defal fekk jinne yi dañ daan wax nit ñi naa leen ñun dañoo xam xëy bu ñun lu ñëwagul xam nañ ko suñu borom bëgg woon doomu aadama yi ni leen jinne yi waxuñu dëgg xamuñu xëy bu ba léegi am nañu ko gëm day fekk ñoom jinne dafa gaaw mën naa am xibaar boo xam ne da koy teel a am wala boog mu dem di sàcc xibaar am ca tuuti jël benn dëgg rax ca lu bari moo tax ñu nga dégg ñu jéem wax lu ñëwagut mbër mi mooy daan nangam léeg dañuy wax dara mu am ba nga defee ne xam nañ waaye ëllëg dañuy daanuwaat mooy ay tanta ay tantale rek la ay tantaatu lay doon nga du wax yu bokkut ak nit ku baax xam ne yàlla moo koy ay mbir déedéet ñoom ci seytaane la ñuy jële seeni xibaar xeetu gisaa nekk yu mel noonu ngir yàlla won nit ñi ne leen jinne yi waxuñu dëgg xamuñu xëy bu suñ borom bi Suleymaan taxawee ca mixraab ba am na ñu ne dafa tëdd daal di sukkandiku ci yad wi dokk bu mu daa yore yàlla daat koy rey maanaam malaaka mu rocc ruux gi mu faatu ah, Suleymaan ma nga dës ko ca yad wa de jinne yi ñoom xamuñ ci dara nee ñu faatu na lu mat at ni ko tafsir ibnu abbas tanwirul miqbas wala al imaamu Shaadi indee Souleymane tëdd na noonu xam nga yonan suuf du ko lekk Souleymane faatu na lu mat at sukkandiku ci yat wi jinne yi ñi ngi liggéey di yenu xeyru mboolem lu leen Souleymane daan def loolu di leen ci gax di leen ci forcé ña ngi koy def xamuñ ci dara suñu boroom nag daal di yebal ak max max gi ñëw di lekk yat wi di ko lekk di ko lekk ba yat wi néew kàttan ndax Souleymane da cee dëstandiku bi ba yat wi ëttanatul Souleymane alayhi salaam Souleymane daal di daanu bi mu daanu ñëw xool ko ne ko faatu na bu yàgg nit ñi ne aha law kaanu yaalamuuna alxayba maa labisu fi lasaabil muhin ne jinne yi nekk ne waxuñ dëgg <laughs> waaw falamma qadayna alayhi almawta bi yàlla dogalee Souleymane mu war a faatu ñu nocc ak ruuxam maa dallahum tegtalu leen ala mawti ca faatu gam faatu illaa daabatul ard te mooy al aradatu lu dul daabay suuf nee ñu mooy max taakulu min saatahu mu dem lekk dokkam bi yet wi falamma qarraba Suleymaan daanoo nag tabayyanat al jinnu an law kaanu la al ba jinne yi nag am nañ lu leer naññ ne ndeke di ñoom xamuñ bu ndax bu fekkoon xam nañu Suleymaan faat na bu yàgg kon ñu fa nekk di nekk ci liggéey ba nekk ci coono ya déedéet kon dañuy dem seen yoon ndax dañoo bëggoon loolu rek lañ doon ñaan yàlla Suleymaan faatu bañu bañu daw <laughs> loolu lañ doon ñaan loolu la la bëgg wax rek ne max gi ni mu lekkee téere bee te yonante bi xibaar leen ko bañ ko ubbee muy noona loolu war fàtt fàttali nañu dégg nga yonent yàlla Suleymaan ak ma xam nga lekkoon nga lekkoon yatama mu na iz azkarat naa fàttali nañu bi ak liha ci ak lekkam max gi lekk gam lekk seen contrat ba fàttali nañu ak la min saati Suleymaan lekkuk dokkuk Suleymaan ba kan moo ko lekk al aradatu max ka al xarsa ba eji tëx ba eji luu hmm. ah, te wa axbara xibaaru na biha ca xew-xew booba ak nabiyu yonante bi ne bu ngeen demee da ngeen fekk max ka lekk ko wakam lu baree bari axaraja génn na moom yonante bi feeñal na xubaan ak denc muy lu nëbbatu euh, xuyubun yoo xam ne ay secret xibaar un sutura la loxoo di ko loo xam ne kenn waru ko woon a xam normalement ndax dafa nëbbu waaye yonante bi xibaar ko te bu ñëwee mu mu doon noona wallahu a'lam